asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu taamu duñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen di ñaanal kenn dal ak jàmm ñu ñëw ci dëdd bi nga xamante ne kii di suñu maam Amadou Mahtar Mbow dëdd nañu ko mu doon loo xamante ne tiis la boo xamante ne ci sénégalais yëpp la dal ginnaaw ba mu làqee li nga xamante ne moom mooy téeméeri at ak ñett ñuy ñaan yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem yàlla xaara ko aljana k nga xamante ne moom mooy Walf Quotidien di ñu si ñëwalaat di wax ne levée du corps de Ahmadou Mahtar Mbow les temps maanaam discours yi nga xamante ne yëkkati nañ ko fa ña fa nekkoon surtout ki nga xamante moom mooy premier ministre bi Sonko discours bu daw yaram la fa def leneen lu daw yaram ginnaaw ñaar fukki at ak ñaar ba nga xamante ne di famille victime yi nga xamante ñoom ñoo amoon ca batalo Joola ñu ngi koy dund maanaam métit boo xamante ñu ngi koy dund métit buñ dul fàtte bu Sénégal yépp di dund ki nga xamante moom mooy le verdict di ñu ci ñëwal di wax ne le naufrage du batalo Joola xamante ne moom mooy vingt deuxième année gannaaw lii di batalo Joola suuxee ci diggante Gambie ak li nga xamante moom mooy Casamance kii di Ousmane Sonko di fa wax ne ne moom muy fi bàyyi dina leen jàppale te dina def le tout ba nga xamante moom mooy bato boobu dinañ fexe ba génnee ko li nga xamante nag moom la ñuy kii di Walf Quotidien di ñu ci ñëwalaat di wax ne lii di conférence de presse bi nga xamante kii kii di la premier ministre Ousmane Sonko ak commémoration du naufrage de bi mu nar boole ndax du nëbb li nga xamante ne mooy commémoration ba muy titre risque d'éclipse du Joola ki nga xamante ne mooy révélation ñëw ba léegi di addu si tempo boobu di ñu xamal septembre naufrage du bateau Joola septembre maanaam ñaar fukki at ak ñaar muy titre si le jour le plus tragique de l'histoire du Sénégal Mété Conté maanaam buñ ko nettali woon a rëy ci Sénégal leneen lu rëy li nga xamante moom la ñuy kii di enquête di ñu ci dëkkal muy législative anticipée yi nga xamante moom moo a am le novembre ñu gis ci ay tàqalikoo ak ay àndandoo yu doy waar yoo xamante xalaatuñu woon sax ne dina mën a nekk kii di enquête di ñu ci dikkal di wax ne l'heure des grandes manœuvres maanaam politiciens yi ku ci nekk yaa ngi ut koy lëkkalool pour am doole ak fan nga xamante war nga faa mun a jëm stratégique l'opposition et les du pouvoir s'unissent pour maximiser leurs chances waaye ci waajal boobu ñu ngi ci nemmeeku loo xamante ne ngay ñuul ci soow mi kii di Sud Quotidien di ñu ci ñëwal di ñu xamal annulation du processus électoral en vue de législatives anticipées muy titre l'opposition engage la bataille judiciaire di ñu xamal ne kii di ATTEL di alliance pour la transparence des élections forte de plus de cent mouvements et partis ñu ngi répartition des sièges des députés ak li nga xamante ne mooy texte yi ñu jël yëpp pour mën a amal lii di élection législative yi benn jaar ci yoon tax nag ñu ñëw ci lii di cour suprême ak conseil constitutionnel ak li nga xamante moom mooy la cour de justice de la CEDEAO pour porter fa plainte waaye nag li ñu nemmeeku ci li nga xamante ne moom mooy préparation des législatives yi mooy bu dee ñi ñu ngi daw di uti ñu ñu àndal tamit ñi ñu ngay tàqalikoo ki nga xamante nemmeeku daal mooy militant yi nga xamante ne ñoom ñooy PRP ne ñoom ñooy Pastef ngi rayante di xottante war ma ci réseaux du parti Pastef à faire preuve de plus d'élégance et de respect dans le débat politique ñu doon ànd démb bu ñu tàqalikoo rek xamal ne am na lu xew waaye lu ci mun di nekk daal dañuy leen xamal ne lu dul jàmm jàmm ko gën ci jàmm jooju la ñuy ñëwee ci les écoles mu fësal na la lab Diop ñu koy ñaanal mu delluwaat sa këram ci nu mu gën a gaawee retrouver famille wam waaye kii di les écoles di ñëw di di wax ne poursuite de l'ancien directeur de la LONASE mais ma ngay titre le domicile de Lat Diop perquisitionné mais rien été trouvé dañ koy defeere tey jii ci devant le parquet financier waaye ay avocat am ñoom ñu ngay dénoncé maanaam di yuuxu di wax ne lii di détention arbitraire la ki nga xamante moom mooy source a di ñëw ci même tempo di ñu wax ne les avocats apprécient le fait que malgré la fin de la durée de garde à vue Lat Diop toujours ñëwagul ki nga xamante moom mooy Birahim Seck nekk sa forum civil mu ngi xamal ne le président de la république ne yoon bi nga xamante moom la jël ci initiative reddition des comptes bi baaxul nee la justice a besoin de temps pour faire son travail et le faire bien surtout en matière de criminalité économique et financière kii di l'informateur ñëw feelu ko di ñu xamal ne les ONG non convaincus par l'efficacité de la lutte contre le système et la ordinaire de l'assemblée générale des nations unies ba nga xamante mooy suñu président de la république Bassirou Diomaye ne kenn ko fàtteti le soleil di di wax na le chef de l'état à l'assemblée générale de l'ONU un discours muy wax ci discours boobu nee pour garantir la paix maanaam jàmm bi lu tax muy sax dàq fii ci àdduna bi maanaam ñun ñëpp dañoo war a booloo nekk benn nee na nag il refuse que le Sahel devienne le théâtre des rivalités des puissances étrangères muy dikk na ci guerrum Israël Ndiaye Gaza di woote li nga xamante ne moom mooy cessez-le-feu di woote tamit ab ndimbal ci nu ñuy amalee ab solution ci ñaari état yooyu noonu ci leen di tàggoo yéen ñi safoo Sénégal Média di leen wax ne à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khader Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoo ak